nag dañ ko war a jiital dégg la am na ñu nekk ci langu politique bi defe naa ni peut-être que yaroowuñu yar bi nga xam ni moom la ñu yaree li ëpp ci askan bi am na ñu nekk aussi ci nguur gi ñoo xam ni seen jëfin ndax moom lay tubaab di wax arrogance hmm. loolu aussi du loo xam ni day dimbali nguur gi te loolu yëpp fitna rek lay indi ak loo xam ne aussi kenn bugg ko ndax Sénégal xam nga dañu am benn mbir suñu la toppee di wax sa mbir ba yàgg ñu jëppi la <laughs> jeexal nga <laughs> kenn ah. dootu la xoolati doonte def nga nag lu baax mën nga dégg ci diggante bi nga wëlbatiku di def lu baax di def lu baax mais suñu la xesee jëppi pare nga ah, moo tax soo yoree nguur war nga fexe ba mm. loolu bañ a am mm-hmm. te loolu nag mu ngi jóge ci nit ñi nga xam ni ñoom nga jox ay ndombal tànk mbaar ñoom ngay yónni ak yu mel noonu am na loo xam ni asma wax nga ko mm-hmm. muy communication mm. gis naa ni day loo xam ni soo xëy na trop trop trop ci nguur gi ndax am na nooy wax ak nit ñi mm-hmm. loo xam ni dana dalal seen xel am na nooy wax ak nit ñi loo xam ni dana leeral lu bare te dana ga ay fitna. te dana oyofal muñ. waaw dana oyofal muñ ndax ndax suñu réew yi coono bi dafa bari. Mm-hmm. te kenn mënul wax ni man su ma ñëwee danaa dindi coono bi. Mm. di nga ko wàññi. mais surtout di nga dalal xel yi ba ni asanu baxee nga mun a muñ. Mm-hmm. loolu yëpp ci waxin bi la. loolu yëpp ci jëflante bi la. Mm. looloo tax nag. am ñu am jaar-jaar. oui am ñu am compétence am ñu am xam-xam. dafa am solo trop. Mhm, mhm. macha allah c'est très important je pense qu'on est tout euh, tout oui. et mais euh, regarde euh, sa keroog invité nañu fii professeur Boubacar Mbodj. Mhm. docteur Boubacar Mbodj nekk conseiller spécial du président de la République. daje na fii ak El Hadj Mansour. mais seen waxtaan waxtaan bu rafet la. waaw ñu ngi waxtaan ak professeur Mary Teuw Niane ci ñoom la bokk. Mhm. Mhm. mais waxtaan bu yem la mhm. parce que ñii dañuy jiital xam-xam. exact du ñu jiital seen xol. merci communication bala mu neex. nga jiital sa xel. jërëjëf sóoraale ñi ngay wax. jërëjëf te ñun en général eh, sunu sunu dëkk bi eh, nit yi eh, xol la ñu waxee ak nit yi. te ba pare sax daraja la ñuy waxee ak nit ñi. ndax daraja mooy que man ministre sàngam la su may wax damay costume ba mu baax ba pare taxaw wax ni et prendre les gens de haut. loolu la sénégalais yi bañ na ngeen xam leen de sénégalais yi am nañ jom fu la fayda bëri ay maami buur ba ngeen xam ne ni bës boo leen reppe ba ñu jéppi leen loolu doo leen defati ayca <laughs> Mais attention là, tu parles à un futur président là. Ah mais peut-être avec a de cette ancienne école là d'aujourd'hui. Mm. Bu ñu demee ba Assemblée nationale ay xale yu 93, 92 di mm. yedd ay mag yoo mhm. xamante ni mag lañ leen bàyyi mhm. wala nday mhm. yaakaar naa ni il est temps de revenir aux valeurs d'hier et on voit dans son attitude que ce soit comportementale wala sax nag ci li muy wax wala ci li muy xalaat gis nañ ni démb bi ak modernité wu tey euh, te euh, du ñaaw kon nag yaakaar bu rafet mën na see juddu Émile Ndiaye sa xarit nee na <laughs> bu jaay doole amoon kenn du wax lu euh, wax loo wax ku la neex bu leen ñaan yàlla jaay doole am Sénégal moom Émile sa xarit mi nga fi dalaloon <laughs> te nga duma ko Émile dafa baax Émile dafa baax. <laughs> ah a Émile. dafa baax Émile Ndiaye il est de l'APR. on rappelle mais il ne faut pas défendre pour défendre. tout comme mm. on dit tantôt faut pas critiquer pour critiquer. Mm. parce que jaay doole nit ñaa ngi koy nemmeeku ci loi bu bees bi ñu bëgg a par exemple par mm. lu tax nit am lu ko naqari waratul manifester gunge leen manifestant yi ndegam da ngeen ah, am. ci tàngeewu nee nañu euh, kenn terewul manifester ak la ci topp. ah mais mais jaay doole mën nga ko jël sax ci ci attitude bi ñuy am arrogance bi mu wax sànq. Ah. Euh, excellence bi mu wax sànq mais ci seen comportement ci ci par exemple un député taxaw àdduna bi yëpp di ko dégg mu ne boo génnee jaasi ji dal la. waaw jaay doole la ak la arrogance la ak yu nuy mel. bëri na très fii ab éphéméride gi dafa xaw ndur ak actualité ndaxte nag depuis 1960 ba léegi rien n'a changé il est temps que ça change c'est pour ça que ça touche à l'actualité d'aujourd'hui et qu'on est obligé de Émile Diaye Asma xam nga ko duma <laughs> sa morom. <laughs> moo la duma nag dëgg neexul ayca <laughs> mi ngi noonu am na koo xamante ni pro asma j'ai remarqué que le professeur parle wolof sans y mettre des mots en français c'est génial professeur Babacar mais bien sûr loolu tax ñu may déglu ko nag man parce que li mënuma ko <laughs> non xam nga moom li ma gën a jaaxal ci Mary Teuw Niane depuis tàmbooy bi ñu nekkoon xale mooy à la fois mun nañu tënku mathématiques yi ci ci nasaraan uh-huh. mais ci wolof tam te moom vraiment don la ci ñoom moom ak Maguette Thiam ak ñeneen yi nga xam ne xam naa leen je pense que seen i seen i temps vraiment. ay exemple la ñu daal. ñoom seen jamono. waaw hmm. xam nga dafa am nopp garmi waaw musique bu baax bi ñu doon déglu. waaw ah. dafay compter. Hmm. moom xam na li may wax. Hmm. Ah. seen attitude seen rapport ak jigéen. Ah. Oh. c'était élégant ak ak altier ak ak ak ndaanaan c'est-à-dire yooyu yooyu valeur yooyu yëpp boo ko boolee mais comparé ko ak tey. agressivité bi. Ah. manque de tenue bi ak. <laughs> xool ko ak musique bi rëdd rëdd bu bare gi <laughs> ak dëkk bi nga def différence bi. ay booy booy dinañ la mer de. Ah, la réalité.